C'est un cabinet médical traditionnel Serigne medunsei, Sey borom tawféex di fajkat euh, cosaan fondiko, jëfandikoo gàncax ngeen fek, koo fekk Touba Kaolack Thiès wala saxi Ndar ngeen jot 78 585 34 34 78 585 34 34 Molin leen di may sketch. Sénégal oto bi ba tey moom. li ngay liggéey moom lan la lay jëriñ. dama koy doon ci baar bi mandi. ah ah man sa mbandi gi moom bett. da nga fàttali wul waxati loolu. non lan moo tax may laaj. dama moo tax. may li may liggéey fan laa koy def lu tax ma laaj. amoo ci kër amoo ci oto. non. bàyyi baabu zet baabu zet yow ñëw sama man dama luwe man. Eh, man dama luwe. yow Eh, boo ne maa amoon oto d'accord waaye dama luwee ma ah juum nga li kay mm, eh. oto moom amu ko dëgg yàlla waaye luwee moom def ma ko waay ah ooteel yenn saa yi nekk sama xarit yenn saa yi doo sama xarit kala affaire bi reetaan. ah eh, comme dem ci rek dafay reetaan ci buntu bi da ngay am. au lieu mu touriste dafay reetaan. affaire femme affaire jigéen affaire lëpp affaire teg jub affaire saj affaire dóor affaire naaj. affaire doxaanal affaire. ko ay affaire ci biir biiru yoon. Hmm. Marème Faye dans le bar sur le barreau président. Marème Faye man ngay tudd. Marème Faye bu fële wax. Marème Faye Sall. jërëjëf voilà voilà euh, naa ko juróotuma ko. ah bon yàgg na. désiré naa ko moom jëkkëram ne. loolu dafa ma dara nag waaye maa leen bàyyi ci aaday buur. voilà am na loolu baaxul nekkee ci yoon di def biiru yoon. Hmm? kon war nga a bu defoon yoon man dinaa fi ne di dox. pour mu may la kay man da kay yabal rek comme sama waaw waaw wax ko sama mbokk la wax ko eh eh xam nga bisa gizi ci bisi xaj xale boo ko day yaakaar tabaski la un jour vendra waxoon naa la ko jaaral nii dala war a yem de jaaral nii ñamoo sa loxo matul say tànk matul nga ne da ngay indi ponkal mii yaay bagaañu la diri ak waay jigéen day mat barke rasulaay dalaa mooy <laughs> kii nga daaneel nag daaneel nga sa moroom yi bàyyi mot nga sa morom mi bay gañ nga sa morom mi bay ni ngoy gis ni dafa retraité ñuy rom ko tek ko fi way mo la mag da def nga lu ñaaw da la mot do fa dem gay woy maram fay da nga def ya nga am jam ha wa ya dëkk jurbel jurbel wa fa nga dëkk de ta gore waaye xam nga li la fi indee. man waaw. déedéet. xamoo ko da nga xëy rek ñëw. dañ maa indi kay. dañ laa jëlee sa kër rek indi. mais man defuma dara. xam nga loo def bisimilah ana ko fi indi. monsieur. dina leer Senghane jaay dina leer. monsieur Senghane jaay ak gaa yi. xamoo eh bul geesu eh xool sa kanam rek yow. ok ah, sant wul. kii kanam kan kay wat. waay kan kay wat ku Kita kii dafa yabaate te tekkil weeri waay na nga def yaa ngi am jàmm naka réew yaa fi ndi waaw fa ngeen jotee kii dama xëy taal sama auto di liggéey way Yo. waaw kana sa wër kalandoo eh mayel kii ma romb ko si arrêt car bi mu arrêté ma moom mi ne ma yóbbaale ma ma yóbbaale ko waaw ñu dem bay ay ful ful waaw mu ne ma may ma ma wàcc. Mm-hmm. ma may ko mu wàcc seere mm-hmm. mu tël porte bi rek yuuxu. yuuxu ah. waaw ne dama ko violé naa ko jox ah. xaalisam dama ko tëddee. commencé maa indil ay jafe yoo xam ne xaw ma lu mu doon. yow dama laa mos a xam. Eh, eh, eh. yow laay waxal. tëj ko ba kii pare. bi mu bi mu ñëwee yuuxu nit ñëpp ñëw. ne ma fay ko xaalisam da koo def nii fay ko xaalisam ma ne ko leen kii dama ko doon yóbbaale. ndax dama gis ne oto amul yaa ngi dégg mu arrêté ma ma yóbbaale ko femme bi daal ne man dam dama koo tëddee naa naa ko jox xaalisam parce que dam daf ma daf dama ko dama ko. ni ngay wax ci yàlla eh, suñu borom eh, eh, ku baax. du yaa koy noppiloo maa koy noppiloo dégg nga. waxal parce que tey jii nii bu amul woon ñeneen ñu fa nekk tey jii nii mënoon nañ ma gaañ. dëgg la. parce que daf ma accusé. dëgg la loo xamante ne du yoon. dëgg la looloo waral nag mu indi. merci tu as bien loxo bi euh, nay jëm nii waaye bu jëmee nii mën naa man mën na def accident de travail. touché fu mu war a touché fu sensible du dëgg eh madame Faye dégg nga li la waxal yow. dégg naa ko de waaye lu mu wax ni dara amu ci. ah xamoo kii kon. xaw ma ko mosuma ko xam. mosulaa yóbbaale. musuma yóbbaale hmm. man ku mel man dina taxaw ci tele nan ay yóbbaale ha dee dëgg rek bu dee dëgg rek neex yalla mo moro yobbo ko ko stop war naa taxaw hmm, wax deug ya kon dal xamoko ko nga ne xamoo musuma ko xam c'est bon ana ki waxal ma rek yawa ci ala parole merci monsieur le président wa euh sama ñeuke rek moy ana sutura sutura man waaw ndax kii taxaw di monsieur Sengane Ndiaye Wah. bis boo demee bay tuumaal doomu aadama bi ndax la ndax dara rek danga war a am ay preuve. ah preuve. da nga ni nit ña fa taxawoon bu dul woon ñoom nga gaañu ani nit ñi. pour man bi ngay taxawal sama client ci baar bi di nga indaale ñoo xamante ne dañ la mën a témoin mais amoo ci benn preuve buy prouver que ni moom daf la accuser ni da nga ko violé. soxna si fan nga dëkk. fan laa dëkk. Mhm. Diourbel. da nga am jëkkër. man. déedéet. lan ngay def Dakar. liggéey rek daan daan sama doole rek laa. n'est-ce pas liggéeyu kër lay liggéey monsieur le président ah. nekk femme battante. nekk commerçant. am jom te nangoo liggéey. talonné ma. même sax même bu ko xamoon waroon na ko sàngu sutura heureusement ba xam ko. parce nit ki boo koy accuser day fekk nga xam ko wala nga mës ko ah, ah, gis. Eh, may ma mu muus ba pare dem boo ko deful daf nuy xaaj rek ci à la parole merci monsieur le président merci donc je vous salue cher greffier mm, mm, mm. procureur mbooloo euh, def lu bax boko ko yóbbee lii yëpp dëgg la kii greffier daf di bëgg kanam monsieur le président wa kii taxaw dafa utiliser mot bu am solo dëgg la muy accusation accusation accusation accusation kii taxaw wa premier fait bi mu def mooy fausse accusation. fausse maanaam jiiñ daal. voilà monsieur le président xanaa ah, kon ah, fausse eh, accusation ñaari côté yëpp la nekk parce que nit ki tam boo koy expliqué day ah, ko d'accord naa xam may ko gis nañ ko bu baax ma laaj la benn affaire yoo soxna si nga ni kii mosoo koo gis. kii mosuma ko xam mosuma koo gis maa ngi koy soog a gis nii. dëgg la. kanamam bu bon. ah ah rond case bi loo fa doon def. dama doon jaay. da doon jaay. mango laa doon jaay. fan la mango yi jaar. mango yi mais monsieur fan la yi jaar. mango fan jaar mango fan ko marché. mais en tant problème yoo xam ne du question. mango waaw vas-y mango. pare naa si yow. chef biñ lay àkkee coow fan la woon. rompé case case ba. kon moom fan nga ko jëlee ba yóbbu ko ba fan. maa ngi ko jëlee géejawaay. géejawaay ñëw ba borom point case bi est-ce que mango dafa faa amoon. mbooloo mi ku doon jaay mango ñëw ba case ba jógee ba géejawaay ani mango yi. objection monsieur le président eh, mais mais eh. attends mais attends. Eh, mais mais mbooloo mi. mbooloo mi. chaque jour. question bi yow laa koy posé. maître. nga ni ana mango naka lay gedja way ñew borom paye kaas ba waa ana place bu joge marché ñew ba kaas ba sa mbokk xana du place ci marché lay nek wa am na droit jaay mango nit a ngi dëkk ba tangé joge tangé ñew di liggéey ses parcelles pour sa dis la vérité attends du bu ko arrêté ngay def ni arrêté Lali. Eh, eh, doy vas-y comme daan ko doole la te day da liggéey. xam ci yoon wax. merci jërëjëf monsieur président non si foog nga ñëwaat foog nga ñëwaat parce wax place am eh, Guédiawaye la nekk. waaw soxna si kaas ba ko jëlee. waaw kaas ba lañ ko fobee. waaw dama ni la abus de confiance dafa am. waaw quand je parle. su ma wax danga may déglu. abus de confiance dafa am. parce que ki ko jël. mbaax a tax mu yóbbu. dëgg la te bu présenté woo ñu xam ni lépp dëgg la. dëgg la waaw dégg mooy vol.

àggale te noppi yow ani ubbi sa place 10 heures ba fa place bi ñëw ba kaas boobu fa kenn neew fa. doxantu. ah doxantu ba kaas boobu bàyyi sa place. kenn moom beneen bi mooy. kii bu ma pare monsieur procureur bind ko faux témoignage la def dégg nga. parce que li mu wax nii yëpp dara du si. merci jërëjëf foofu laay daaneel. jërëjëf. ah tu monsieur Senghane Ndiaye avant may. kii bu ñëw sori. transfert d'argent tuuti ki mu doon kas léegi transféré na ko d'argent. ñëw nga appel la. vas-y. monsieur Ndiaye. s'il vous nga présenter wu. kii man la commissaire eh, dañoo soow eh. seen bopp yu bon yi. mën nga met Diallo s'il vous

Monsieur le Président. Silence. le Président, cette femme. On a reçu tellement de plaintes. Police parcelle. qui une femme de ko comme ni Melni, am yaram day dugg sa day def de nga le ko mu la silence. silence. s'il vous plaît L'élection. sax day jaay boppam day doo xaale woon fayoo ko mu yuuxu jigéen bon a ngi nii ku yàq deru jigéen a ngi nii soxna si tubaar fa kàlla war a mel lépp mel lan mooy njëriñu sàcc tey laal ba laal laalaake moo tax mënoo dem nga daani sa doole musoo jaay mango Jurbel nga dëkk jóge fa ñëw Ndakaaru def sa jëf ju bon ji tey say mbokk bu ñu la déggee doo rus say tëjal sa gémmiñ eh, eh, eh, mbébé ñàkk foo nga dem liggéey liggéeyu kër nga dem fóoti man xulli man nga dem toggi nga wut loo jaay comme ni nga ko waxee. mais lan moo tax nga bëgg di yàq ay doomu aadama di toroxal ay doom ñaar ñaar doomu aadama lañ gaañ ci yu mel nii. vraiment vraiment hmm. sàcc la kii sàcc bu mag la. Hmm. monsieur le président je vous demande d'appliquer ce qui est xam nga nit. loolu olof yi naan fi nga wokk foo xasan. delo fasab loxo li sal waaye bii liisul dafa ñagas ah ma Mariam fi nga wokk xassa non lool way fi mom ñagas na laal ker nak dina laal ba laal laalaake moy li nga ya. def def nga ko ay nit yu bari say pelante ngi ni ki bu fekkon jup na don 10e personne bo xamanteni ni ñu door nañ leen dam leen ndax yow ñeneen ñi tejj nañ leen kasso bi ndax yow ñeneen ñi seen xaalis jënd nañ ko ndax yow ah monsieur le commissaire yow que vous lay kii rek jéggalu mu fay la tamit il faut mu fay la amaan boo xamante ni trois cent mille la rek mu tane nga dàmpoo ko doy woo ko dara sax waaye mu dàmp la ko rek. Ah, te man nga toog bu la neexee ça dépend de toi man nga pardonné ça dépend de toi. Eh yow doo ma baale. ça dépend de toi. nañ ko teg si yoon. merci. Il faut que vous fassiez la baal maa lay baal man maa war a baale kii pare na ah, yow jigéen bu toll yow. Diri yang ke karta bar fakalla. Am nga ho, am nga bar. May war di caga ya, tok di sacc. Ni nga dem ñu ko ci auto yi di pass di dem geedja waay ko auto dem liberté 6 ko auto. Boko dajalo ndarna dam bi mango. Ngalal jaay. Bo jaay bo amé bénéfice denc. waye ya, ni ngay def bu la nit dooroon bal nga dé do perte. Ku bobali Indi ko fi. Kan la kala dina ñaar du da yang a yamule woon ko seen kër baay dina ñaar bu ñaaree bu ma la sa gémmiñ gi mooy ñëw sa place demukaay wanag bi man maa la wax kon daw def place ba ah yow ya. am nga nga ne d'accord dina ah li njëkk cëriñaan mënu jóg jënd gerte. dëgg yàlla yow li nga njëkk a dóor ñaata la sa première dóor ñu commencé sa première tëriñaan ñaata nga tëriñaan bindal ma yow. yàgg na de. ñaata la. Hmm? ñaata la. ñaata la. waaw cent cent cinquante mille. waaw. deuxième deux cent mille. trois silence. troisième dóor. cent cinquante mille. déggal lii quatrième door. Hmm? quatrième door. neuvième door. cinq ah. door ñaata hmm? door. cinquième door. waaw foofu rek laa yamoon. foofu nga yam léegi. Eh. excellence léegi yow xaalis bii yëpp nga dóor anam lii lépp nga dóor anam. dama ko doon yóbbanti sama waajo. ah pour ma yaram la daal. pour ma yaram la jërëjëf. ah le tribunal de Mbirion après avoir concertation. <laughs> boo paree léegi na daa am gel bu bees pour mu may ko su baree dem loolu nga ma dee di yaa ma ko dee pour mu wax ko gars yi waaw loolu la de nee fa am gel bu bees pour su paree mu may ko repos cinq minutes mu dem ñëw après mën nga dem béti boy ak a gaaw à la tribunal de mbiri yoon visite pour met kawe sama big après avoir concertation madame Mademoiselle Mariam Sall. Mariam Faye. Mariam Faye. Par ma décision et la décision de la loi. De Kavi au milieu. na ci ngang na ngang eh là. eh eh boy, bàyyi def ndànk le je Allez tout eh eh eh mefe. tournel le tribunal de million après avoir conversation li ma la lan laa ko wax bokk fi na la jugé ni dina mais man maa ngi gisee wala yéen jaayul décision jaayul jaayul waa yëkkatil jigéen nga man maa lay wax li ngay def ta gi ginnaaw rek yow le tribunal de Mbiriyone justice pour tous après avoir concertation ah waaye yow eh ma dul déglu wala la madame Marème Faye le tribunal de Mbiriyone condamne madame Marème Faye euh, sur ma voix totale et orale deux mois de prison de Lombol dans le tribunal. Vamos aplaudir, tudo bem. Não, não, não, não. Jalo Bali. Rus dongin rus dongin. Monsieur le Président, ñu laaj benn question. laaj na benn question. xaaral. wax nga laaj est-ce que xam nga kan la kan kan moo ko fi indi commissaire police. ah commissaire commandant. xaaral ma tontu ko baal ma tontu ko soo gisee police policier la toog. waaw. kii ñaar doomu aadama la sànq. léegi. nga taxaw fi ñuy lëmbal ngeen di kotante. d'accord commissaire nguuram jeex na sama nguura bi des. loolu togul yàlla ku mën a doon commissaire Guédiawaye Parcelles Assainies c'est moi qui ak. pardon. <laughs> bul fàtte job la di kër sa waa ji <laughs> vas-y. yëkkati taxawal. le terminal almaro romb. de mbiri yoon. après avoir signé un mois de l'embal, signé un mois de l'embal, signé une minute de serré à main hein? et une minute de serré à main et deux accolades un deux un million booy na ñëw mais booy booy bi jël booy na gel bi ñëw booy eh na booy bi ñëw kon moo ko tëj booy bi waaw hmm? ah, dafa gel bi xam nga lekk nga suñu wërsëg booy bi daa rëcc nga lekk nga suñu wërsëg lan la commandant bi kon. kan lu sama yoon man kay suma nga ñu newu ci. Eh, la séance de bi dem leen. sama yoon nekku ci sama nga ñu dem leen. Ah. boy bi loo ko maasonné. ah loo maasonné boy bi. lan nga maasonné boy bi laa bëgg a xam. jotuma laal pen bi. ha jotuma laal pen bi. def nga erreur. jotuma laal pen bi. niil niil. nil renvoyée ba ñu jàppaat ko. ah. séance renvoyée ba ñu jàppaat ko. ba ñu jàppaat ko. waaw. kon nag séance séance renvoyée eh, ba ñu jàppaat ko. merci traditionnel Serigne medunsei, Sey borom tawféex di kat eh, cosaan booy jeufandiko gantiax ngeen mën ko fekk ca Dakar Touba Kaulak, ties wala saxi Ndar ngeen ko nak jot ci 78 585 34 34 78 585 34 34 mo len don may sen sketch.